alhamdulilah rabbil alamin gannaaw bu ñu sant yàlla jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu suñ doom suñu jarbaat Cheikh Mouhamadul Mahi Cissé di rafetlu taxawaayam ak itam ju kawe ci sondok bi nga xam ne moom lañ taxawal muy saddukul xadratil ibrahimiya yi di rafetlu taxawaayam ak itti ju kawe ji nga xam ne ji moom la ci def di nuyu itam nijaayam Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim eh, di rafetlu itam taxawaayam ak participation bu am bi nga xam ne bii def na di ñaan nag mboolem taalibe yi ñu roy ci ñoom ba ku ci nekk jéem a def lu ëpp la moroom ko def ñu ngi leen di sant di leen gërëm salaamaaleykum